nit ki mën a moytandiku mboolem pettangal yi nga xam ne àddina dana ko tër seytaane di ko tër bànneex ak bakkan noonam yooyu nga xam ne ñoo ko wër kenn ku ci ne yor say pettangal di ko rëbbu bëgg mu daanu ci biir loolu xam-xam moo ko mën a musal gannaaw yàlla moo ko ci mën a musal ba mu xàmmee pettangal yooyu ba du tàbbi ci biir ndax xam-xam bu am njëriñ dañuy wax ni koŋ la maanaam mbubb moo xam ne boo ko solee dara du agsi ci yow dinga ngànnaay loo xam ne itam mooy aar borom ba lenn lu mu sib wala lu mu bëggut a gis du agsi ci ci moom ci kattanu yàlla mu doon loo xam ne itam xeet yi ci la ñuy sutaatee ci la ñuy rawantee xeet wu la ëpp xam-xam rek gën laa nekk ca kaw ña ca des féete ko suuf naka noonu itam xam-xam mooy li nga xam ne mooy jox dundub doomu aadama xayma bu nit ki bu bëggee ak dundam tekki dara Euh, day fexe ba ab xam-xam nekk ci biir làmboo ko mooy tax li muy def lépp mën a am njariñ am fu mujj waaye bu fekkente ni euh, amut benn xam-xam bu boobaa la muy def li ci ëpp man mansuuran rek lay doon te loola yaakaar naa kenn ñaanu ko moo tax ngir sëg dund am xayma am valeur euh, nit ki na jéem a góorgóorlu bu baax a baax baax ba am xam-xam lu mu ci am rek nag bu mu ca bu mu ko bu ko xeeb ndax moom itam géej la goo xam ne yemut fenn kon loo ci am rek euh, ngay sàkku lu ci dolliku waaye bul ci xeeb dara euh, mooy li nga xam ne itam mboolem charia yi fi mas a jaar te boo leen xoolee lépp di benn ñoo bokk li ñuy digle di bokk li ñuy tere charia yooyu yëpp soññee nañ ci xam-xam ak jàng ba nit ki mën a mën a gindiku borom xam si borom xam-xam itam ñooy wutaakoonu yonent yi li yonent yi alayhimu salaam nekk woon ci kaw suuf muy jàngale ak gindee loolu boroom xam-xam yi euh, moo leen ñoo leen ciy wutu moom xam-xam itam mu amee xayma boo xam ne amee valeur woo xam ne mënisu ko natt mënisu ko tëkkale ak lenn du alal du juddu du daraja du lenn loo xam ne euh, mënees ko tëkkale ak xayma bi nga xam ne xam-xam am na ko naka noonu itam moo jàppandal dundug doomu aadama ba mboolem li nga xam ne moo jafe woon ci moom euh, daa di yomb li sori woon lépp mu fexe ba mu jige euh, li nëbbu woon ba kenn mënu koo xam xam-xam wuññi ko li euh, nekkoon fi benn barab tasaaroo wut xam-xama ko tasaare ba nga xam ne léegi àddina lu xew rek benn minute ñëpp mën nañ ko yëgandoo moo jokkale itam mboolem ñi sorente woon xam-xama leen jokkale ba mel ne ñu ngi toog ci benn place ak yeneen ak yeneen i njariñ yoo xam ne kenn mënut taxaw di di lim yëpp ci yi nga xam ne xam-xam lamboo na ko ay njariñ yoo xam ne kenn munu koo mënu koo lim muy loo xam ne itam loo ko gën a baril euh, di géej goo xam ne loo ci gën a naan di gën a mar di gën a euh, bëgg ndolleen loo gën a xuus ca biir itam di ko gën a sopp di gën a bëgg a des ca biir loo bëgg génn mukk moo loolu mooy mooy xam-xam loo gën a naan rek gën a mar xam rek moo moo mel noonu Euh, naka noonu itam mooy la ci yéeme mooy li ma waxoon léegi mooy amut fu mu yem amut fu mu yem benn xam-xam boo xam ne am na yemukaay euh, benn bu ci nekkee da nga cay jël euh, def ca la nga man rek bàyyi ndax genn fànn genn fànn ci xam-xam rek yaa xam goo ci jël gu mu mën a doon nit ki mën na caa jeexal ak dundam te du du ko du ko peek du ko peek xanaa kay da cay jël lam man bàyyi la ca des danañ ci joxe misaal alxuraan wax na ni balil insaanu ala nafsihi basira doomu aadama boppam rek dooy na ko waar mën na cee xool waaye boo xooloon tey jëmmi doomu aadama rek cër bu ne am jàng la léegi gis ñoo xam ne bët dong lañ jàng moom lañ xam gis ñoo xam ne nopp dong lañ xam gis ñoo xam ne gimiñ dong ak i bëñ loolu lañ xam ba doomu aadama jeex kenn ku ci ne fànn gam ci jël mën na caa jeexal ak dundam te jamono yu ne yu bees di ci génn yoo xam ne da koy jàngiwaat gis ngeen bataay yi docteur boo xam ne day tëj kabineem dem jàngiwaat ñaari ba ñett yokkaat alliwoom ñëwaat te bu doxaatee tuuti jamono laajaat ko mu war koo defaat kon te kooku genn fànn dong lay jàng ci nit moo xam bëñ la wala bët la wala nopp la wala lu mu mën a doon genn fànn la ciy jàng kon bu jàngoon fànn yëpp kon naka lay mel kon mooy dundam gépp xalsat naa jeex te du ci jeexal genn far kon euh, loolu mooy xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci benn xadis ma ngay leeral mu ne aqrabu nnaasi min darajati nubuwa ahlul ilm wa ahlul jihaad sallallahu alayhi wa nee na ñi gën a jige yonent yi ci doomu aadama yi mooy borom xam-xam yi ñoo leen ci gën a jige ci daraja ndax buñ nee diis rek euh, boroom xam-xamay toog ñi ci topp mooy ahlul jihaad mooy ñi nga xam ne dañuy gàddu seen ngànnaay di xeex ci yoonu yàlla ngir tasaare diine ñooñu ñoo ci topp wala beneen jihaad bu mu mën a doon te nga di ko def ci yoonu yàlla rek ahlul jihaad ñëpp dugg nañ ci biir mooy façon jihaad boo mën a def rek nga xam ne yàlla tax nga ko def ni borom xam yi amma ahlul ilm fa dallu naas ala borom xam yi ñooy tegtal doomu aadama yi li nga xam ne moom la yonent yi indi muy ay xam-xam yi ñuy jële ci seen borom ak i njàngale loola borom xam-xam yi ñoo ko mën a tasaare ba nit ñëpp mën koo xam waaye nag amma ahlul jihaad fa wu bi asyaafihim ala ma jaahad bihi rusul li borom xam-xam yi jàngale baax na lool mooy li yonent yi indi woon waaye nag wa ahlul jihaad ñooy fexe ba nit ñi appliqué ko maanaam di ko jëfandikoo bañ ko teg rek eh, ni ko ñuy waxee maanaam def dossier ba ci turwaale rek fàtte ko fa loolu ahlul jihaad ñooy tax ba du am mooy tax ba nit ñi li yàlla digle tere ko ñu di ko jëfandikoo ahlul jihaad ñoo mën loolu bu gannaaw bu ko borom xam-xam ya xamlee ba noppi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ba tey ci beneen xadis mu ni yashfau yowm alqiyaama al suma summa al ulama summa shuhada bis penc yi ñooy jëkk ràmm bu ñu ràmmoo ba noppi ku cey topp ñu ni borom xam-xam ya ñu ne ana siddiquuna yaak shuhadaa yaak saalixuuna ya ñu ni borom xam-xam yi ñooy jiitu ba noppi ñooñu soog a dikk kon xam ngeen ni daraja xam-xam daraja bu kawe kawe la mooy li ma waxoon léegi ni bu yenente ne diis rek borom xam-xamay toog kon xam-xam lu mat a lu mat a sonne la al imaamu shafii radiallahu anhu wax na ni waalam bi ann al ilma laysa yanaaluhu man hammuhu fi mataamin aw malbasi fajal li nafsika hadan fajal li nafsika minhu hadan waafiran wahjur lahu tiba ruqaadi wa abbisi fa laalla yowman in xadarta bi majlisin kunta raisa wa faxra daaka al majlisi imaamu Shafii radiallahu anhu nee na xam-xam de na nga xam ne kenn du ko am koo xam ne euh, dafa def yitteem yépp muy euh, feesal biiram ak lu mu sol koo xam ne loolu rek mooy yitteem kooku na na taayee sonn xam ne du am xam-xam nee na ci wutal sa sa bopp ab cër bu am am solo ndax jataay boo toog rek yaay doon ndamul jataay booba ku ñu wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu wax na ni fa inna taalluma al ilmi lillahi xasana jàng xam-xam xam lu ko te tax euh, aw yiw la tuyaaba la waaye wa talabuhu ibada sàkku gi nga koy sàkku rek ak jaamu yàlla la jàng gi nga koy jàng tasbix la mooy ak sàbbaal la ni nga xam ne nit ki mën naa yor kurusam di wax subhanallah alhamdulilah allahu akbar ni mu amee tuyaaba noon la nekk ci xam-xam ba di ngunum ngunumi noonu la amee tuyaaba ndaka noonu albaxsu fii jihaad di ko gëstu di ca sonn xam-xam bu ñu la diwa ko xam nga laxas dem seeti ko jàngi ko gëstu googu nga koy gëstu moo gàddu sa jaasi di xeex ci yoon yàlla ñoo tolloo daraja wa taalimuhu liman laa yaalamu sadaqa waaye nag boo ko amee ba noppi nga xamal ka ku ko xamutoon loola nee na ab sarax la yëkkati ci sa poos joxe ni mu amee tuyaaba ak la la ci yàlla defal ci wiiw nee na noonu la xamle ab xam-xam di la joxe tuyaaba wa kullu ratbin wa yaabisin lahum yastaghfiruun mu ni euh, lépp lu wow wala lu tooy lu yàlla bind dañuy ñaanal ñiy sàkku xam-xam di leen jéggalul euh, sunu borom jéggal leen te aar leen sallallahu alayhi wa sallam wax na ni euh, jaala allahu makanat al ilmi ala min makanat al aabid jaala allahu makanat al aalim ala min makanat al aabid sunu borom tabaraka wa taala moo def darajey borom xam-xam moo ëpp daraje jaamukatub yàlla ay jaamukatub yàlla boo xam ne la muy def tegu ko ci xam-xam borom xam-xam moo koy ëpp daraja moo koy gën a moo koy gën a kawe euh, waykat bu wax ni al ilmu yarfau baytan la imaada lahu wal jahlu yahdimu bayt al ilmi wa sharafi xam-xam de day yëkkati néeg boo xam ne amutoon benn keno amutub juddu amut alal amut dara waaye nag am njàng dugg fa akub xam-xam dugg fa yëkkati néeg ba ba mu kawe euh, néeg yi nga xam ne ñu amoon ab juddu te amuñu xam-xam wala néeg yi nga xam ne ñoo amoon alal te amuñu xam-xam néeg boobu am xam-xam day mujj féete leen kaw kon xam-xam day yëkkati néeg bu amul xayma waaye ak itam noonu lay daanele néeg bi nga xam ne bu ñëpp nawoon la teg ko ci kaw bu ak ñëwee fees ko dell noonu la koy wàccee ba ci suuf mbokk yi xam ngeen xam-xam. ay fànn yu bare bari la waaye bokk na ci jëpp solo muy xam-xamub diine ak lépp loo xam ne mooy tax sa pas-pas dëgër ci sunu borom tabaaraka wa taala ak sa ngëm lépp lu koy dëgëral ak luy tax nga xam sa jaamu yàlla ak lu muy tëddee loola mooy xam-xam bi nga xam ne moo ëpp solo ci mbooleem xeeti xam-xam yi sëriñ bi wax na ko ci euh, biir dinañ ci ñëw incha allah naka noonu itam bu jàllee ilmul ijtimaa am na mooy xam xam-xamu social li nga xam ne ci ngay jànge société bi ba xam euh, naka la ñu ilmu nafs muy xam-xam boo xam ne moo lay jàngal psychologie doomu aadama boo xoolee doomu aadama yi rek xam kii ban façon la li muy wax wér naag wérut yooyu yëpp nga man koo xam ci moom ci ab xool dong loolu ilmu nafs moo koy jàngale am na it ilmul kalaam muy xam boo xam ne mboolem lu aju ci wax ci lu koy jubbanteeg lu koy neexal ak lu koy rafetal ca la dugg waaye ak xam-xamu médecine xam-xamu Euh, science nga xam ne moom mboole mi ñu waxoon yëpp rek mën nga ko taxañ far dugal ci biir saako boobu muy science lépp ngi ci ci biir kon ab ab la bu gudd a gudd boo xam ne mëneesu la taxaw di ko di ko lim waaye yëpp doon yoo xam ne yu amal njariñ doomu aadama la ci diineem ak ci ci addunaam mu mën ko caa jariñoo cheikhul xadim radiallahu anhu wax na ni ci téeréem boobu ñu wax mu la yéen sudur mu ni wa baadu faalam anna gayra mastaxal fatan bihi ilmun wa diinullahi jal ba bayit yi jeex sëriñ bi nee na yow mbokk mi yow taalibe bi wala yow jullit bi na nga xam ne li gën ci lu nit di soxla woo euh, moom doomu aadama li gën ci li muy soxla wo mooy ab xam-xam boo ak diine yàlla ji mu xam ko ba mën a mucc ëllëg man faatahu haadaani fi dunyaahu mustaxilan bil maali an mawlaahu koo xam ne ñaar yi faat na la nga soxla woo alal ak àddina kese euh, fa maa lahu gadan siwa al adaabi wa niqmatullahi bil irtiyaabi kooku daal bu ëllëgee du fa fekk dara lu dul mbugalum yàlla akub sànjaam wala yaasu billaahi taala te lii ma wax nag sikk néew ci sëriñ bay wax euh, mu ni wa xayrul hada wa xayrul ilmi ya ixwaani ilmun yuqarribu ila rahmaani sëriñ bi nee na xam bi gën ci xam yi mooy bi lay tax a jige sa borom boobu moo ci gën beneen bu cay topp soog caa topp ka ilmi tawxidin maa tasawufi wal fiqi wa amalu bila tasawufi mu ni xam-xam ba ci topp nag ba ci gën mooy xam-xamub tawxid ragal yàlla xam ko Euh, jox ko wàccuwaayam boobu mooy bu ci gën bu jàllee lu mel ni xam-xamu tasawuf nga xam ne mooy ihsaan li nga xam nga fexe ba li nga koy jëfee yàlla dong tax dara rey àddina di ci dugg nee na loolu euh, mooy ba ca topp ci xam-xam bu am njariñ yeneen yeneen ya topp yépp nag soog caa topp xam-xam kon mooy li nga xam ne moo gën a cher ci lu doomu aadama di yilif ci ak dundam ndax xam-xam rek moo mën a may nit ci diir bu gàtt rek mu fàggul la yiw bu bare bare bare moo xam tuyaaba la ju la yàllay bindal moo xam koomum àddina la moo xam jooy am léegi léegi nga liggéey dara lu néew ñu fay la ca lu bare bare la ko waral mooy ab xam koy def waaye doole defu ko la la ca topp mooy euh, euh, kon xam-xam euh, jox nit ki daraja boo xam ne itam mën na ko daal di am léegi ñu yiw fi barab ñu yëkkati ko teg ko ci kaw lu koy waral mooy eh, ab xam-xam boo xam ne amee na ko kon njëriñ yu bari yooyu mu làmboo te gaaw ci lool ci jëriñ ko doomu aadama bi moo tax mu ëpp xayma mboolem yeneen yi nga xam ne doomu aadama mën na koo fàggu ci ak dundam moo tax dañuy wax ni eh, bu nit ñi dee fàggu alal yow demal fàggu ji xam-xam lu ko waral mooy ñi am alal bala ñoo mën a jëriñoo seen alal jooju dañoo dajeeg borom xam-xam ba mu eh, wan leen yoon wa ñuy mën a jaar ba jariñoo ca bu ko defee ñu soog Euh, mën a jariñoo seen alal jooju moo tax bu nit ñi dee sàkku alal wutil xam-xam yow ndax ñi am alal bu ñëwee dañ la ko jox nga jariñ leen ci seen sa sa xam-xam boobu euh, kon boo xoolee rek tey ci réew yi nga xam ne mooy réew yi nga xam ne ñoo avancé euh, seen première matière bi ñuy sukkandiku mooy ab xam-xam du or du wurus du jamaa du beneen pétrole du dara waaye xam-xam rek ci la mën a sukkandiku ba Euh, yooyu yëpp fekk si leen mu mel ni sax réew yi ëpp xam-xam day mel ni boo xoolee tey ñoo gën a euh, wala néewle nañ lool ci mbellit yi nga xam ne mooy jóge ci biir suuf ñu ci bari am na ci ñoo xam ne amuñu ko waaye nag xam-xam moo leen koy xëccal ba fu mu mën a nekk rek mu mu mu fekk si leen nga joxe misaal itam ci réew yu réew yu ñàkk xam-xam yi nga xam ne yàlla dénk na leen euh, liy jóge ci biir suuf moo xam bu mu ci mën a doon muy or muy pétrole muy jama muy yeneen ak yeneen yi ñuy jëriñoo yëpp nga xam ne mëni si koo xam yëpp yooyu yëpp lu ca mën am te amut xam-xam ña yor xam-xam danañ ñëw jël ko ci ñoom nax leen te duñu ca mën dara kon aw askan war nañoo fexe ba am xam bu baax a baax a baax mooy tax kenn du leen mën a utiliser xal la woo leen jëriñoo leen loola la koy waral mooy ab xam-xam buñ mën a am boo xoolee tey suñu réew yu néew doole yi nga xam ne Euh, li ñuy jëggaani ci bitim réew muy ay milliards milliards yoo xam ne dañ ko fi gàddoo di ko yët yeneen réew yoo xam ne ñoom ab xam-xam rek lañ ñu ëppale ëpp ñu ay jumtukaay yi ñuy liggéey ndax lañ ko nañ seenum njàng ñu di leen yët xaalis bu dul jeex tax euh, imagineel tey milliards yooyu bu fekkonte ni tey xam-xam bi fi war am am na fi ay nangami junni milliards yooyu yi génn di jëndi dara mu desaat ci biir réew mi kon bi muy tàmbalee wàcce alquranul karim ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yu gi di door ban baat la tàmbalee néew ko wutil alal néew ko wutil nit ñi néew ko dara lu weesu euh, jàngal jàng ndax xam na ne ci biir njàng mboolem yi mu ko war a defloo yëpp danay dugg ci biir njàng mi te bu njàng amee yooyu yëpp dana mën a sotti moo tax sunu borom tabaaraka wa baat baatu iqra moom la njëkk a wàcce ci alquran iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal ci turu sa borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo la bind alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam moo xamal doomu aadama lu mu lu mu xamutoon ñu gisaat itam yeneen ay yu bëree ci biir alxuraan yoo xam ne euh, yépp la muy tegtale rek mooy dayab xam-xam ak valeur am mu am innama yaxsha allaha min ibadil ulama yàlla nee na ragal yàlla ci jaamam ñi euh, mooy ñi ko xam ndax ku xamut yàlla mënoo koo ragal yàlla bala ko mën a wattandiku da xam dara ci li nga xam ne moom la am kattanam gi ak sañ-sañam bi ak man-manam bi boo ci amee dara loo xam lu néew néew bu boobaa kenn du la ko wax ñi ko mën a ragal ci jaamam ñi mooy ñi ko ñi ko xam waaye itam qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun sunu borom mooy laaj mu ni ndax ñi am xam mën nañoo am ñi mën nañoo yem ak ñi xamut dara déedéet mënuñoo yem de ñi xam dara ak ñi xamut dara mënuñoo yem mënuñoo toll la wàccuwaay moo tax mu ne yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ñi gëm yàlla ak ñi nga xam ne dañoo am xam da leen dana leen yëkkatil seeni daraja ba mu nekk ca kaw a kaw daraja yoo xam ne ñi amut xam-xam amuñu ngëm ñoom ñu ko duñu ko mën a am alxuraan tam boo ko xoolee am na benn aaya bu am solo boo xam ne alal du njaboot du dara waaye yàlla nag ma dolli xam-xam kon loolu nga xam da ko feddli noonu tawkiid wala tax la man na nga xam bu baax a baax a baax ni xam-xam ak jëfe xam-xam yooyu yaar ñooy yoon yi nga xam ne ci la nit ki mën a jaar ba texe ñooy ya ñooy wasilata saada yoon yi mën a jaar ba texe mooy ñaar yooyu mooy xam-xam ak jëfe ko mu wax ni nag xam-xam nag yow sama mbokk sama mbokkum julit xam-xam mooy Euh, li gën moo ëpp solo jëf baax na lool waaye bu teguut ci xam-xam xam-xam baa ko gën moo tax mu ne wal ilmu afdalu axi min al wa ussuhu moo ko gën waaye mooy fondement fondement am jëf bi nga xam ne ci la jëf mën a taxaw ba du daanu lu mu xam-xam insha allahu taala du daanu ba ila yawmi diini ba yàlla di ko fay kon xam-xam moo gën jëfe moo gën jëf ju tegu wut ci xam-xam waaye itam mooy fondement bi nga xam ne jëf jooju bu ñëwee ci lay mën a mën a tegu waaye nag sëriñ bi nee na lakinnama samaruhu kan nafi fi amali la jur ji la garab gi di jur xaliluhu bil ilmi aksaru sawaab min alkasiri maa jahlin lartiyaab nee na jëf ju néew lool te tuuti waaye ñu teg ko ci xam-xam moo gën fuuf jëf ju baree bari rëy lool te ak réer képp lal ko ak ñàkk xam kon xam am na am na solo lool lool mu ni nag naafiahu alladi eh, alfata taallama sëriñ bi nee na xam-xam bi eh, am njariñ nag mooy bi nga xam ne mooy xamal nit ki sunu borom tabaraka wa taala na mu ko waxee woon ca béy ji jiitu léegi waaye xeeti xam-xam yi nga xam ne day lore yëpp ak la muy waral yooyu yëpp sëriñ bi leeral na ko ci biir waaye tam ne wax ni xam-xam nag euh, bu ko nit ki amee benn mu xëcc ko jëme ko ci lu koy jariñ wala mu xëcc ko jëme ko ci alkade te bi lay xëcc jëri ci jëme ci lu lay jariñ nag mooy nga jiital xam-xamub diine ba xam fi ngay teg sa tànk ba noppi bu ko defee leneen loo ca tegati mën na laa xëcc jëmale ci lu lay jariñ waaye boo jiitalee addina kese ah mën ngaa dem ba tàbb ci kàmb te doo ko te doo ko yëg inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funuun ki nga xam ne ragalut yàlla xamut yàlla joxu ko place am kooku de tuddut borom xam-xam tudd ko de doonte nag fànn yëpp jàng na ko de waaye taxut mu tudd borom xam-xam ndax li tax xam-xam di am njëriñ nekkut ci moom te loolu mooy ak ragal yàlla sayidna aliyin karamallahu wajhahu euh, wax na ni moom itam ci luy dëgëral xam-xam ak dooleem mu ni mal faxru illa li ahli lilmi innahumu ala alhuda liman istahda adillaau foofu akuk yëkkatiku kenn amu ko kudul ñi nga xam ne ñoo amee xam-xam ndax lu tax mooy ñi bëgg a jub ñoom ñoo leen di tegtal yoon yi nga xam ne ci ngay mën a jaar ba jub teg ci yoon moo tax ñoom ñoo amee ndam nee na na nga fexe ba xam-xam nekk ci yow nga dund dund gu texe dund gu neex te na nga xam ne itam nit ñëpp bu ñu faatoo wala nit ñëpp sax faatu nañ waaye ñeen ñooy dund mu ne borom xam-xam yi rek ñooy dund borom xam-xam yi rek ñooy dund waaye ñeemut xam-xam ñëpp moom seenug dund moo ko faatu moo yam ndax ñàkk ñàkk njëriñ an abi hurayrata radiallahu anhu jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na euh, ku sóobu aw yoon ngir sàkku xam-xam yàlla dana la jàpp na yoon wu la yóbbu yoonu sàkku xam boo ca nekkee yoon wi lay yóbbu àjjana da jige lool te day yomb ci yow waxaat moom yonent bi salallahu alayhi wa wax ni ida maata al insaanu inqataa illa min salaas salallahu alayhi wa sallam nee na bu nit faatoo jëfam yëpp day dagg Euh, fi ñu doon bind ay yiwam ak dañ koy tëj ndax dara mënatu caa dolliku xanaa ñetti yëf rek moo ca mën a duggati mooy mu am sadaqa jaariya sarax buy daw boo xam ne euh, ma nga ko fa def doomu aadama yi di ko jariñoo mu di ko fekk fa mu nekk tuyaaba ja loola moom mën na koy mën naa dolliku ci ay jëfam waaye euh, aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam boo xam ne ñi ngi koy mi ngi ko fi bàyyi nit ñi di ci jariñu bind ay téere bàyyi fi walla nga am loo génne ci xam-xam loo xam ne lu amal njariñ doomu aadama yi la nga bàyyi leen ko ñu di ko jariñoo loola tuyaaba ji ba bis pénc ji da lay fekk fa nga fa nga nekk di yokku ci sa yiw ba ca topp mooy doom ji baax joo xam ne ak ñaanam lu dakk ci yow mukk fu mu toll mi ngi lay ñaanal ñaan ko di la fa fekk kon xam-xam am na solo lool mbokk yi moo tax ñu baax ñëpp di njëkkante kenn ku ci ne bind téere yoo xam ne danga ko fi bàyyi doomu di ko jariñoo mu mel ne yaa ngi sunu borom tabaaraka wa taala ak njëggal kon sàkku xam-xam am na solo lool waxaat ni kii sàkku xam-xam mooy kenn lislaam kon ba nag ni diine jóge na fi bu yàgg ndax diine moom ab xam-xam la ak lu ñuy jàng di xam nañ koy defee ak nañ koy bàyyee xam-xam boobu nag boo amutoon ñu koy sàkku di ko téye bu ñooñu jeexee ñeneen sàkkuwaat ko bu loolu amutoon kon nag ni diine raaf na bu yàgg yàgg yàgg yàgg waaye ñi koy sàkku di ko jàng téye ko ñeneen ñëw ñu jox leen ko ñeneen ñëw ñu jox leen ko ñooñu ñoo fi bàyyi dem ci nit ñi ah moo tax nag nga amal njariñ nit ñi euh, kon kooku la société bi gën a gën a soxla moo tax jàngkat yi ak jàngalekat yi ñu mat a dooleel lañ ñu mat a taxaw lañ xam ne askan yépp ñoo leen yor ñooy tax ñu mën a jëm kanam mbokk yi boo xoolee xam-xam ba léegi ak daraja bi mu amee ñu jàngat benn rek muy bi ñu jógee ci xaswatu badrinil kubra xare badar bi ñu ci jógee ñu jàpp ay prisonniers ñoo xam ne jullit ñi ñoo leen jàpp indi leen euh, ñu digle ni sallallahu alayhi wasallam diisoo ak ñi mu war a diisool lañu mujj juboo mooy ñi nga xam ne am nañ alal ju ñu jote seen bopp nañu jot seen bopp kenn ku ci ne na am lu mu joxe ñu bàyyi ko mu dem yoonam ñi nga xam ne amuñu ko nag amuñu loolu te mën a jàng ñooñu nañ jël doomi jullit ñu jox leen ñu jàngal leen bind ñu jàngal leen bind ni ñuy binde waxuñ ñu jàngal leen alxuraan ndax xamaguñu alxuraan ndax ba léegi ay yéefar lañu woon kon bind lañ leen di jàngal ak nan lañu koy defee bu ko defee ku ci jàngal ab xale ba mën a bind mooy sax njot ñu bàyyi la nga dem kon xam ngeen ni euh, mbokk yi xam am na solo lool lool lu mat a euh, lu mat a sonne la naka noonu bokk na ci liy tegtale dayab xam-xam mooy euh, mboolem yonent yi yàlla mas a yónni bu ñu ñëwee defuñu lenn lu weesu jàngal nit ji ak xamal leen kon ab xam-xam la ñu indi boo xam ne min indi rabbina ma nga jóge ci sunu borom ko wa taala ñu indi ko euh, di di ko jàngal nit ñi ngir ñu mën a xam fu ñuy jaar ba mën a jaamu seen borom ko wa taala mën a mucc ëllëg oh. محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله Allah الغاية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود المسجد اللهم أنت الذي أنت fële wala wala day wala seen xadir waaw kon mbokk yi ngir wanewaat rek dayab xam-xam euh, alquranul karim day wax ni ci yoon làmmiñu sayidina ibrahima alayhi salaam rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim nga delluwaat ba tey ci alquran alkarim mu waxaat huwa allazi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin aaya yoo xam ne day tegtale ni mboolem yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla ma sa yónni bañ ñëwee defuñ dara lu weesu jàngal doomu aadama yi rek lañ moo leen taxoon a jóg mu mel ne risaala bi kon li ko tax a jóg du dara lu weesu am jàngale amut leneen lu lu nekk ca biir jàngal nit ki sellal ko yóbbu ko ci kaw ba mu mën a dajeeg boromam tabaaraka wa taala loolu mooy lubbu mboolem risaala yi nga xam ne moom la sunu borom tabaaraka wa taala ma sa yónnee alayhi salaatu wasalaam wax ni fadlul aalimi ala al aabid ka fadli ala adnaakum ngëneelul kiy jaam ni gën a ni ni mu gën a kawee kii jaamu yàlla te xamut ci jaamu ga dara ni mu ko gën a kawee mi ngi mel ne ni ma leen gën a kawee wala ni ma gën a kawee ki gën a suufee ci yéen gën caa ñàkk solo man sallallahu alayhi wa sallam na ma ko féetee kaw noonu la ko borom noonu la borom xam-xam boobu ëppee daraja kii jaamu yàlla te amut xam-xam kon xam-xam lu mën a duufal mbir la lu ko mën a fooral la lu ko mën a yëkkati la Cheikhul Xadim radiyallahu anhu wax na ni ci majmua mooy xikam yu bari yooyu nga xam ne ak njàngaleem yu am solo yooyu nga xam ne moom la Cheikh Abdullah radiyallahu anhu dajale woon ñu tudde ko majmua boo fo deme da nga fa gis sëriñ baa ngi wax ni al ilmu ala qismayni naafiun wa daafi al ilmu naafi yaquudu al abda ila al janna wal ilmu daafi yaquudu al abda ila an naar Cheikhul Xadim radiyallahu wax na ne xam-xam ñaari xaaj la bu am njariñ ñaari xaaj la bu am njariñ di ak boo xam ne buy buy buy buy buy buy buy lor la buy am njariñ ak buy lor bi am njariñ mooy bi nga xam ne day wammat nit ki ko ci àjjana jàppal ni dangaa toll ci war a sàkku xam-xam waaye boo ko xamee ba noppi itam na nga koy jëfee ci li yàlla yoonal sharia bi ñu la indil mu diw yoon wu ñu la rëddil nga war caa jaar la nga xam dee ko ja dee ca jëfe loola bu ko bàyyi rek muy xam-xamu kese buy buy buy nelaw nee na fal ilmu xayru ma bi hisdaan al fata Euh, kasal mbaseem yi gën a rafet te amul xam-xam bu ñëwee am na fu ñu koy teg waaye kasol perkaalam tey borom xam-xam ba nga xam ne moo war a def waxtaan wa moom la déglu bu ñëwee fa gën a kawe foofu lañ koy teg kon wàccaay wi gën a foor mooy waaje xam-xam waaye du waaje ak col moo tax sëriñ bi wax ni mu waxaat ba tey nii innal ilma naafi'a laa yahuusuhu shaxsun illa bi illa bi arbaati ashyaa xam-xam bu am njëriñ kenn mënu koo am ci lu dul ñeenti yëf da ngay gëm yàlla maanaam da ngay am imaan am islaam am ihsaan te sax ca am ñett yëpp ba noppi sax ca nag waaye loo ca mën a am te ci it du am njëriñ waaye boo boolee ñett yooyu ba noppi sax ca nag boobaa xam-xam bu am njëriñ foo mën a nekk dana la fa dana la fa fekk waxaat itam ba tey ci biir majmuwa bi ak xikam am solo yooyu mu ni koo xam ne bëgg nga sab xol dund sab xol du dee te xol bu dee mooy loo xam ne yëgatut euh, ak waar yégatut lu baax mënatut a dékku boroomam kooku mooy xol bu dee wala jaasu boo bëggee nag sab xol di dundu ba bu ñu waxee yàlla mu saf la nee na na nga ak borom xam-xam yi nga xam ne dañuy jëfee euh, seen xam-xam mu ne itam képp koo xam ne moo la tegtal xam-xam kooku moo la gindi moo la jubal moo la teg ci aw yoon ku la teg ci ku la won xam-xam ne la yoon waa nga ne yoonu xam-xam a ngoog kooku daal xamal ni orienté na la euh, jubbanti na la waaye ku la sonal mooy ki la tegtal àddina ku la tegtal àddina teg la ci yoonu àddina xamal ni sonal na la ndax yaa ngay dàq moo loolu jot mukk ba ilaa yawmi diine doo ko jot waaye ku la tegtal jaamu yàlla it sonal la ndax jaamu yàlla noppale wut nag am na njëriñ nag teg la ci yoon wa kooku xamal ni moo la noppal ndax bu ñëpp wëree fa ñëpp yi daje ji mooy suñu borom tabaaraka wa taala kon ku la fa teel a joxañ kooka noppal na la eh, nga jiitu fa ñëpp ku ñëw fekk la fa ñu waxe diine xam-xam bu am njëriñ ci lañ mën a xamee suñu borom tabaaraka wa taala al eh, maarifatullah la tataxaqaq illa bil ilmi naafi xam yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mënta am mukk ci lu dul xam-xam bu am njëriñ boobu sëriñ bi waxoon léegi ci foofu rek nga ko mën a amee ibnu abbas radiyallahu anhu wax na ni Euh, borom xam-xam ni borom xam-xam yi am nañ daraja yoo xam ne suutee nañ ko jullit yéemut xam-xam juróom-ñaar téeméeri daraja daraja bu ne diggam ak moroom ma boo ko doon xayma tey doxab juróom-ñaari téeméeri at lay doon nga suute leen ci nag juróom-ñaari téeméeri nga ni boroom xam-xamub jullit fa mu nekk sori na lool lool lool ak fa jullit boomut xam-xam fa ñu nekk dana sore lool sallallahu alayhi wa sallam wax ni al imaanu oryaan nee na ngëm yàlla dafa mel ne eh, dafa rafle jëmm la joo xam ne dafa rafle waaye li muy waaje di ci di colam mooy attaqwa mooy ragal yàlla moo moom lay sol mooy mbubb mi muy sol eh, zinatuhoo ab taaram nag mooy alxayaaw kersa ndax nit ki mën naa eh, dafa bu war bu amee ragal yàlla ba noppi dafa war a ànd nag mu am kersa nag lool boole ca waaye meññet ma nag mooy Euh, euh, xam-xam moom moom mooy la ko nga moom la koy moom moo moo koy moo koy jariñ mu waxaat ni li an yahdiya allahu bika rajulan waxidan ahabu ilayka min addunia wa ma fiha xam dara loo mën a gindee benn jaamu yàlla ba mu tegu ci aw yoon loolu de moo gën ci yow wala moo la war a gënal àddina ak li ci biiram ndax tuyaaba ju bari ji nga xam ne mën nga ko cee amee benn nit benn nit dong loo xam ne boo xam ne yàlla gindee na ko ci say wax ak sa xam-xam nee na loolu moo gën àddina li ci biiram moo gën ci yow mu ni bu fekkente ni borom xam-xam xam-xamam boobu mu am wala sàkk gi koy sàkku da caa jublu jëm suñu borom tabaaraka taala nee na lépp da koy ragal borom xam boo xam ne yàlla rek tax nee na lépp da koy ragal waaye borom xam-xam boo xam ne àddina képp lay wër nag kooku moom day ragal lépp ida araada al aalim وجه الله حابه كل شيء وإذا أراد أن يكسر به الكنوز حاب من كل شيء lépp lépp lay ragal ndax li muy wut moo moo wuti wut am koom lay wut ak àddina te loolu wuti wut moo tax ak ragal mooy fees dell ab xolam waaye ki nga xam ne yàlla képp lay wut moom nee na lépp koy ragal ndax muy wut moo moo wutu moo tax euh, mu waxaat ba teyam ni euh, xam-xam de dafa mel ne ndàmb lu ñu tëj loolu maanaam gaal googu nga xam ne dañ ko duy ba mu fees ñu ñu ñu ñu kànnaare ko loola mooy xam-xam lu ko mën a ubbi nag ba nga jariñoo cee mooy laaj nee na dee leen laaj fasalu yarhamukumullah dee leen laaj ndax laaj de eh, danañ ci yool ñeent nit kii laaj ak ki koy tont di ko xamal ak kii déglu ak ki nga xam ne moom defu ci lenn waaye moom da leen romb rek sopp leen te yàlla tax ngir xam-xam bi ñu nekk ñooy ñëpp danañ am ci danañ am ci tuyaaba ja imaamu Shafii radiyallahu wax na ni Euh, man de sama xam-xam moom fu ma jëm rek day ànd ak man yoruma xam-xam boo xam ne ci këyit rek la nekk su ma gisul këyit yi du ko mën a xam déedéet kon loolu mi ngi junj ci jamono yi léegi ji nga xam ne euh, lu bari ci xam yi ci këyit rek la ne ak i machine waaye nekkatut ci ci dënn yi moom muy xam le ne xam-xamam moom ci dënn la nekk bu ci xam-xamam ci dënnam la ne bu nekkee ca jàkka ja ma ngaa xam-xamam bu nekkee ci marché ba ma ngaa xam-xamam bu nekkee ca mbooloo ma ma ngaa xam-xamam fu mu mën a nekk rek xam-xamam mi ngi ci mi ngi ci biiram kon xam-xam bokk na ci li koy dëgëral di ko saxal mooy ak mokkal waaye nag di lu jafe ci jamono ji ñu toll lool lool lool lool euh, moo tax cheikhul xadim radiallahu anhu wax ni walaa takun fi kulli yawmin taarika taalluman suma bihim al nasika ba bayit yi jeex ngir sakkanal waxtu wi sëriñ bi nee na bis bu ne bul bàyyi jàng bis bu ne rek nekkal ci am njàng te la nga xamit nga di ko jëfe gis nga ni mu fonke fu mu la ni jàngal rek ma la naan ca wet ga la nga xam dee ko jëfe du digle mukk njàngom kese moo xam ne àndut ak jëfe ndax xam na ne bëriwul njariñ waxoon na la ko ci gannaaw xam-xam garab la goo xam ne meññatam mooy jëfe ga te mooy tax nga nga mën a nga mën a jëriñu moo tax sëriñ bi xër na lool ci fu la digale jàngal rek da cay toftal ni la nga jàng ko dee ko jëfe nee na xam day leeral xam ki nga xam ne moo ko moo ko xam di wuññi ngumba gi nga xam ne moo ne woon ci ab xolam akub xelam ak xalaatam ngumba googu xam-xam moo koy xacc ba mu set wicc weex toll euh, noonu ñuy def weñ gu xumaag nee na noonu la xam-xam di def ab ab xol da koy euh, xacc ba mu weex toll nee na itam na nga xam ne jàng itam dafa am waxtu nit ki buy jàng euh, na fexe ba def ko ca waxtu ndawam koo xam ne sa waxtu ndaw nag ah, fexe nga ba jàngoo ci boo doonee mag njàng ma dana jafe lool te da ko rëccu ndax jàng ci ci ci ndaw buñ koy misaal dañuy mel ne ciment bu tooy boobu nga xam ne da ngaa rëdd ca ca kaw bind ci ciment bu tooy nga bind ci kaw na mu fay desee nga xam ne ba àddinay tukki bu ñu tëjut xeeroo boo ñuy fekk fa noon la njàng ci ci xelum xale noonu la mel bokkut ak njàngu mag mi nga xam ne dañ koy misaale nii bind ci kawam ndox bind ci kawam ndox moom boo teggee sa loxo rek far na loolu mooy njàng ci jamonoy mag ndax yitte yu bari yi programme yi ci sa bopp bi nga xam ne xaju ci yooyu bu xam-xam ñëwee bëggatee dugg du am moo tax lu lu loo jéem a dugal itam euh, day day génnaat kon ñu soññ gone yi bu baax a baax ci jàng ci waxtu yi nga xam ne ci lañ ko euh, ci lañ ci tolle waaye itam teewut nag mag am na nu mën a jànge comme ni ko sëriñ bi daan defee radiyallahu anhu ci ay tomb ak i xamle ak i joxañ yooyu mag mën na caa jànge waaye am na njàng moo xam ne moom ci gone lañ ko gën a séentoo te ci la gën a jekk te moo koy mën a jekku itam bu baax a baax euh, naka noonu itam Euh, am na benn borom xam-xam bu wax ni nee na yaxtifu l ilmu bil euh, bil amal fa in ajaaba wa illa artaxal xalil ibnu ahmad radiallahu anhu wax na ni xam-xam bu amee euh, day woo jëf ni ko ñëwal ñu ànd ñëwal ñu ànd ndax ñu mën a am njëriñ nee na bu fekkente ne jëf nanguut a ñëw nit ki nanguut a jëfe xam bu boobaa xam-xam ba mën naa rocc ku dem yoonam bàyyi fa nit ka dootu ko amal dootu ko amal njariñ Euh, moo tax imaamu Shafii radiallahu anhu mi nga xam ne daa fonkoon xam-xam lool ku si siiwar histoire am gis nga ni mu bëggi woon xam-xam ay wayam yu ci baree baree bare ci njàngale ak luy soññ nit yi ci xam-xam dana ci jëm moo tax mu ne waman lam yaduq marra taallumi saatan tajarraa dullal jahli tuula xayaatihi koo xam ne coono bi jàng am ak xam lu coono bi ci nekk ndiggante su gàtt soosu nga koy def boo munta euh, muñ coono soosu muy ndiir su gàtt nga nga yanu coono boobu looy def ah léegi daal toroxtel foo toll di laaj ñu di la xamal ak naan la du noonu toroxte loolu nag nga kos ko yéene dëkk sa giirug dund kon nag jàpp naa ni fexe ba diir su gàtt soosu nga xam lu ci li ngay xam lu li des sa dund lépp nga ne ci tedd nga moo gën euh, nangu woo yoonu yanu coono bu gàtt boobu li des sa dund lépp nga ne ko ci euh, toroxtaange loolu nga xam ne mooy ñàkk xam kon euh, nit ki war naa fexe ba ba mu tollee ci xam mu jéem a xam waaye bu ko rëccee wala ay waajuram defaluñ ko ko itam bu màggee lu mu ca mën a jéem a dabaatal rek mu euh, jéem koo dabaatal moo tax Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mi ngi denkaat ba tey ni wajtahidu fil ilmi ya ixwaani wa taatil mawla bila tawaani sëriñ bi nee na na ngeen farlu ci xam-xam yéen mbokk yi te ak topp seen borom tabaraka wa taala te bu leen ko yeexee nag ndax xamu leen fan la dee di ñëwee mu ne yaa machara shubaani in xiftum xajal fa qaddimu taalluman fa saariu turan ila taallumi wa jaahidu nufuusa bi tafahumi nee na yéen waxambaane yi yéen xale yi nga xam ne yéen a toll ci jàng yéen de maa ngi leen di dénk na ngeen bu fekkee ragal ngeen gàcce ci seenu dund ragal gàcce ëllëg yowmal xiyaam na ngeen jiital xam-xam ci bala ngeen a def dara lépp lu ngeen di def ci jëf na ngeen ci jiital xam-xam ah, bu jëf ja ñëwee tegu ci kaw xam booba tegu ca kaw xam-xam booba fasaarion turan ila taallumi na ngeen gaawtu bu baax baax wuti xam-xam ta xam ne lépp lu ngeen di wuti lu dul moom xam-xam moo ko moo ko ëpp njëriñ ci yéen wala tuwaxiru taalluma ila kibarikum fa zaaka yaxrumul ola bu leen yeexe xam-xam nag di ko négliger ba mag ñëw yitte ñëw soxla ñëw ngeen bëgg ko wut ah, nee na loola dana tax ba ah, la nga ca war a am doo ko am waaye tam ah, ak ak kawe dana la ko xañ ndax nit daa war a am xam-xam ca ba mu ko waree am bu ko defee mën caa jaamu yàlla jaamu yàlla am ko bare googu moo koy julal ak kawe ëllëg insha allahu taala ah, mu ni nag wa kullu may lam yatabaadar fi sibah ila taallumi wa qaadahu hawa fa qalla an yanaala fihi lmatlaba isfaatahu taysiruhu waxta sibah képp koo xam ne nag waxtu wa nga ci tollee gaawtuwoo dem jàngi ah, ba ak mag ñëw topp sa bakkan ak bànneex rek ne ca loola ba mag ñëw ah nee na de néewaa